nit moom li nga mën yàlla du la ko defal ça c'est clair. xanaa xamoo ne Sénégal tariixa bu ci nekk bu ci bu bu ñu bu ci investiroon seeni taalibe ci liggéey ñu am autosuffisance alimentaire. le plus rapidement. Hmm? bu ñu jëloon rek tariixa yi nekk Sénégal rek. ku nekk na say taalibe bàyyi leen. ba pare sëriñ si borom tariixa yi bu ñu amul moyen daal ne état bi jox ñu moyen am na nañu main d'œuvre am ñu suuf te boobu sax da nga am main d'œuvre gratuit parce que taalibe bi. du du ko sëriñ bi da koy def ngir sàkku ngërëm mais angle bu nekk les quatre angles jëlal jur Diourbel dalal Medina bàyyi Kaolack jëlal jëlal jëlal jëlal jëlal jëlal jëlal jëlal Tivaouane jëlal jëlal jëlal hmm? yi nii boo ñëwee laayee nii comme ñoom amuñu suuf bu ñu béyee mais géej gi mooy seen tool nga leen ay gaal yu baax ngor wakaam yof Euh, utal leen ay gaal yu baax permettre leen euh, ñu développer pêche bi hmm? mm-hmm. nga jël pël élevage bi mais xam nga li ñuy perte ci meew nu mu toll faatu ak li ñuy perte ci der ak li ñuy tuur nu mu toll bëri na hmm? mais quand même lan la def pour pour agriculture bi ak élevage bi ak pêche bi te yooyu ay secteur la yoo xam ne li muy employé ci ay nit dafa bëri. ay famille yu bëree bari ñoo ciy dund. mais géej rek géej man ci Sénégal laa gisee dëkk bu nekk ci booru géej di pauvre tey Mbour boo demee Thiès économie Thiès région de Thiès Mbour ko yor te Mbour lan moo tax mu yor ko mooy. napp bi napp bi ak hôtel yi. tourisme bi beneen cees bi beneen côté bi bon ñaari raay yi ñoo fa nekkoon chemin de fer bi moo taxoon moo am doole. Mm. benn dëkk ñaari gaar fa vois mais gis nga partie socialiste dañuy ñëw daaneel chemin de fer moo tax hémorragie bi dafa commencé depuis ci socialiste yi hémorragie bi di continuer hémorragie bi di continuer ba fi mu toll nii hémorragie bi dañ ko war a arrêter nag ko léegi ma ma j'aurais plus ma je, je vais man bu fekkoon damay jomaay damay jénn daal population bi maa leen waxoon le quinze. mënta ne. mais lii laa fi fekk. moom sax waxul woon le quinze li mu waxoon mooy nañu ko jox un plan d'urgence avant le quinze. merci beaucoup Fatou foofu laa bëggoon loolu la waxoon merci beaucoup. nit ñi nag moo jël la quinze boobu ne la quinze la ñuy wàññi. la presse aussi parfois elle est un peu mais. la corruption la corruption au niveau de la presse communiqué conseil des ministres franchement li président waxoon mooy nañu ko jox un plan d'urgence avant le. loolu laa dégg. bu ñu joxee plan d'urgence moom mooy xool selon les possibilités. ak ban yoon lay yan yoon lay jaar pour wàññi dund bi pare li ñu wax comment fi dëgg dëgg hypocrisie bi dafa bari Sénégal de hypocrisie bi ak ak ak ak ak ak ak manipulation bi dafa bari quoi tu vois tey bon li waa ji doon wax rek état bi fi jógee euh, ñi doon gouverner démb ñi ngeeg seen i milliards ak seen i presse <laughs> moom kañ nañ ñaan yàlla rek euh, maanaam leen nouvelles subvention de la presse. Mm-hmm. mu bañ demee na mu daan deme nga xamante ne boo bokkul ci boo dul pro état duñ la sédd.

man ba may njëkk dégg si gis seen site bi ak logo bi RTS laa tegoon quoi. <laughs> bëri na koy wax. mais Télé Sénégal war a taxaw taxaw taxawaayu Télé Sénégal. waaw mhm. waaw. c'est important. waay. <laughs> mais situation économique bi ñu toll itam bi nga xam ne président Bassirou Diomaye Faye moom la fi fekk souvent bu ñuy wax day mel ni dañ koy fàtte. situation économique bi oui li ñu fi li ñu fi. président Macky Sall bàyyil mhm. ci wàllu koom-koom ci tolluwaay réew mi euh, am na cependant ñu leen di critiquer ci ni ñu defee pratiquement reconduction maanaam li fi fekkoon ci ni état bi doon dundee ñoom dafa mel ni ci yoon boobu la ñu tegu est-ce que tam bokkul ci li yéexal yëf yi parce que ñu bari ñu ngi doon xaar xëy na ay coppite yu radical vraiment ay changement yoo xam comme lan exemple par exemple changer oto yi euh, yenn saa yi ñu jàpp ne xëy na oto <laughs> ministre yi seen euh, ay. train de vie quoi. train de vie de l'État. non déjà comme oto yi dañ ko fay fekk saa waay moom dig nga yàgg na Macky Sall ba mu fi nekk man moom li ma jaaxaloon ci Macky Sall mooy que ni da daan wax nañu wàññi train de vie wu état mais chaque année muy gën a jëndaat ay oto yu bees. <laughs> donc. Euh, mmh. oui parce que mënoo nekk réew mu ñàkk quand même tu te permets chaque jour nga wax fi ne suñu ministre yi oto yi ñor. oto boo demee réew yi gën a développé. ah yoruñu yoruñu ko de. sunu président yi oto yi ñuy dawal ci réew mu développé. président yoruñu ko de ministre yi yoruñu ko président yi yoruñu ko député yi yoruñu ko. yooyu itam yenn saa yi. train de vie de l' moom dafa cher. dafa cher dafa de manière générale. non bu Sénégal moom moo ci raw quoi parce que bu Sénégal moom dafa jéggi dayoo quoi Sénégal dafa jéggi dayoo parce que fii demoon nañ ba nga xamante ne même ambassadeurs yi. <laughs> sax seen jabar yi dañ leen daan jox salaire cinq cent mille par mois mais bi gën a garaaw sax mooy décret bi ñu arrêté barki dem les ex ministre de l'état ñu jëlal leen seen salaire un million xaw ma euh, trois yow bu ko deux millions huit cent c'est waxoo sax ministre en fonction mais ex ministre. ancien ministre ancien ministre mais quand même. président Diomaye ñëw abrogé décret bi. <laughs> Hmm? te des na des na ambassades yi des na seen responsabilité décret yi dafa bëri li ñu war a changé waat ci train de vie de l' état mais comme ni ma la koy waxee rek quoi un mois yëpp xaju ci quand même. c' est vrai ndànk ndànk ngay def escalier sinon da ngay créer confusion. ak confutation. tu vois boo ñëwee rek parce que am na ñu bëri dañu yaakaaroon ni bon président Diomaye bu ñëwee dafay def chasse aux sorcières daaneel ñi dindi nii hmm. dàq ñi génne fii kërti kërti def xam nga mais il faut que mu def ko ak méthodologie tu vois parce que tamit état bul bul def yenn changement yoo xamante ni hmm. da ngay freiner waaw da ngay chambouler kii bi quoi il faut nga def ko ak méthode quoi tu vois il faut que nga dëkk bi bon heureusement que Diomaye il est conscient quoi je vois bien que yàlla moo bari suturam jox ñu Diomaye comme président imagine tey jii bu fekkoon ni Sonko moo nekk président kon. <laughs> kon lu naroon xew. ah kon lu naroon xew. donc kon tey jii action bu mu mënti def dañuy jàpp ni fayonte la. ok. <laughs> te Sonko dafa xaw a radical quoi dafa dafa dafa dafa dafa dafa révolutionnaire la bañkat la. waaw la bañkat la quoi waaw la bañkat la. te yàgg na am lu ko metti quoi ci dëkk bi euh, ni ñu ko daan téye ko wane na ko d'ailleurs ci salaire waa fonction publique. Mhm. ni ñu leen di fayee loolu moom man yàgg naa wax ne. Mhm. c'est un problème boo xam ne dañ ko fulaalul. Mhm. parce que man bi ñuy lancé justement étude bi nga xam ne moo doon xool pour joyanti rémunération ci fonction publique maa ngi ko teewee woon mhm. c'était à Ngor ministre euh, Innocence Ntap Ndiaye mhm. euh, ministre de la fonction publique mhm. moo ko jiite woon fekkee naa bi ñuy lancé boobu étude atelier la woon pratiquement fa la ñu yendu mais boobu ba léegi amul benn suite alors que à partir de 2000 dafa am benn perturbation loolu bokk na ci li sonal Sénégal mooy masse salariale fonction publique bi li tax mu yegg ci yenn niveau à partir de deux mille dafa am ay yokkute yoo xam ni kenn xamul lu koy expliquer par exemple nga jël benn corps les magistrats exemple laa jël nga yokkal leen seen salaire de 200 pour cent par exemple enseignants yi nga xam ne ñoo yem ak ñoom hiérarchie wala yeneen corps yi euh, d'autres hauts fonctionnaires dañuy gis seen bopp ne mën ak jëwriñ ñoo yem ci njàng dafa def bac plus 6 par exemple man ma def bac plus 6 donc y a aucune raison que moom mu ëppale ma salaire de sorte que mu mën ma fay loolu bokk na ci li déstabiliser un peu comme que réew mi yokk yi day doon indi parfa aussi ay grève parce que boo gisee ne yokkal na ñi nga xam ne yéen a yem. njàng nanguwuñ la yokkal yow nga soobu ci grève. am ah, day dafa discrimination dafa am ci biir discrimination. Hmm. usman Ousmane ko par exemple nee na il faut ñu waxante ci dëgg. Hmm. teg ko ci taabal ji jubbanti ko ñi nga xam ne xëy na am nañu lu jéggi dayoo peut-être nous allons vers des réductions. jéem a leen yemale tolloole leen ci logique teg ko ci njàng teg ko ci xam-xam teg ko ci yemale vraiment équité. waaw parce que xam nga mm, Macky Sall dafa doon def benn genre xeetu politique boo xamante ni Macky Sall xam nga narul woon a bàyyi Sénégal. loolu moom ça dépasse Macky Sall lim problème bi. ça a commencé à partir de wadd très bien. mais les moom moo jur Macky rek. <laughs> bu leen séparé de. bu leen séparé de mais ñoom ñëpp kenn ku ci nekk amu woon intention bàyyi réew mi mhm. waaw. gis nga waat moom deux mille fii cinquante la waxoon libéraux yi ñoo yor réew bi mhm. Macky Sall ñëw ne horizon de mille trente cinq. mais ñoom ñaar ñëpp seen vision seen seen est-ce que amul rupture. Mm. Hmm? am na rupture. mais tey euh, corrompre corrompre euh, corruption bi au niveau de la justice